alxuraan nag ñaara fi nekk nga mën a toog di ko jàngale wala nga mën a fexe ba ki koy jàngale tala toog di ko jàngale booba yéen ñaar yéen a bokk dafa am tariq mubashir ak tariq ba mën a toog jàngale alquran yàgg kii jàngale yéen a yéen a yam kon ahlul quraan yi ahlullahi wa xaasatu yóbbu ci rek kii toog di sa xale bi waaye képp salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ما شاء الله الرجيم